sama soxna Njóoba ma ndeysaan ma noppalu ko rek ñaana ko bu baax Mbàkke ak ma bëggoon te doy loo ma sëñ bi sax ndeysaan loolu wax nee na ma yaa doonoon léppam dëgër maam moo ne soxna Bally rek xalaat ñaanal ko bu baax Mbàkke sëñ Tuubaa sa maam taxaw ko fam Bally niteel na ma soxna baali boole na ma ci nit ñi soxna Bally boole na ma ci taalibe yi boole na ma ci sëriñ si boole na ma ci boppam asalaamaaleykum mbokki sëñ daara yi maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal soxna Njóoba ñaan di waajuru sëñ Maam Moor mu sëñ Muntaxa te kenn ci soxna mu Muntaxa ñuy sàkk ñëpp ñaanal ko jàngal koy kaamil ku ko man ku ko mënati mu jàngal ko ñeent fukki suratul ixlaas mu jullil ko julli gii defal ko faatu rawatina guddi gii ba ca ñetti fan yi jëkk ya ñetti fan ñetti fan yii rek di ko jullil di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla jéggal ko te yërëm ko te wanale ko Seexul Xadiim nu ci barke Sëñ